hi xalqatikum alyawmiya xalqat jotaayu fiq almajlis alfiqhi aw majlis alfiq ñu ngi ànd ak yéen mbokk yi ñuy déglu ci seen jotaayu fiq bii jottalikoon nañu benn sharta ci shartaay njàpp gannaaw buñ leeralee ne sharta ak ponk niroo nañ ci wàll waaye wuute nañu ci geneen wàll niroo nañ ci wàll mooy ponk ak shart bu ca fàddu jaamu yàlla yàqu waaye ponk parti la ci jëmmi jaamu yàlla gi cër la ci ñu joxewoon misaal ci rukuuc ak sujuud buñ mànkee ci julli julli yàqu ndax ay ponk lañu waaye parti lañu ci julli gi faatixa naka noonu maanaa xaaj lañ ci jëmmi julli gi sharta nag su ñëwut jaamu yàlla gi yàqu waaye du xaaj ci jaamu yàlla gi mooy jëmm ju indépendante la ci jaamu gi misaal mi mooy lu mel ni jàpp ci julli wala laab ci julli bu laab amut julli du baax waaye laab du xaaj ci julli charte la ci looloo tàqale diggante charte ak e, rukun ñu waxoon ne sharta <clears throat> boroom xam-xam yi am na ci ñoom ñu ko séddale ñetti xaaj shartaay war mooy loo xam ne su amul jaamu yàlla gi du war wala su amee jaamu yàlla gi war shartaay wér mooy loo xam ne su amul jaamu gi du wér ak charte yoo xam ne nag dañoo boole nekk di chartaay war nekk di chartaay wér charte bi njëkkoon a tudd te defe naa moom rekk lañ jottaliku biig mooy chartaay lislaam nekk jullit chartaay wér la walla duut ko shartaay war la wala duut ko ñu waxoon ci xalaat ak jàngatu boroom xamxam xam waaye li wér mooy lislaam shartaak wér la non seulement ci njàpp waaye bépp jaamu yàlla duñu ko nangu ak duñu nangu ak wéram féeg nangu ne yàllaay yàlla yonentu sallallahu alayhi wa la yàlla yónni jiituwut ko wa ma manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru li tere yàlla di ko nangu mooy dañoo weddi bu dee lislaam ndax shartaay war la wala du chartaay war waxoon nañ wuuteeg boroom xam-xam yi waaye li wér mooy xéeféer yi niñ warale jullit yi ñu julli ak woor ak jàpp ak banxaasi lislaam yépp noonu lañ ko warale ci ñoom bu ñu seetee dalil yi loolu la ñuy fekk ne mooy li wér moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi wax boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne yéeféer yi dañ leen xaatab dañ leen xitaab ci usulu diin ci cosaanu diine yi lu mel ni ki gëm ak nangu ne yonantu bi yonantu la sallallahu alayhi waaye ndax dañ leen xitaab ci furoo yi loolu ci lañ wuutee wane nañ démb ne li wér mooy dañ leen a xitaab ci furoo yi lu tax nag buñ ko defee du wér ba pare ñu naan dañ leen cee xitaab mooy la ko teree wér jógewu ci shaariu du lot ci ñoom la jógeen mooy bañ giñ bañ a gëm buñ nangoo rekk mu wér ñaareelu sharta ci shartaay njàpp mel na ni mooy nekk suñu barabu gëstu tey mooy li ñuy tuddee ak takliifu toggu jëf toggu bokk na ci chartam yi aji jàpp ji nekk mukallaf mukallaf nag mooy albaaligu al aqilu mooy koo xam ne gént na wala jot na xati taklif ba pare am xel loolu li firi mooy njàpp du war te du wéree ci ab dof su fekkee nag ni aji jàpp ji géntut waaye ràññee na mooy li ñuy wax xàmmee ci wolo xale bi xàmmee na ñu ne kooku njàpp warut ko waaye njàpp dana wéree ci moom maanaa njàpp du war te du wéree ci ku dof ngeen baal ma ci kàddu gi waaye fa ñu wax ko kon am xel chartaay war la chartaay wér la waaye mata eh, ñàkk a nekk mukallaf ngir ndawe ànd ak ràññee dana tax njàpp wér donte du tax njàpp war xàmmee nag <clears throat> ñu ngi koy taarifalee ay taarifaat yu wuute benn ba mooy am na ñu ne huwa alladi yufhamu alxitaab yafhamu alxitaaba wa yaruddu aljawaaba wala yandabitu bi sinnin bal yaxtalifu bi ixtilaafi nnaasi mooy koo xam ne dana dégg xitaab te dana rafetaluk tontu ñu ne seetuñu ban at la am mi ngi wuutee rek kemtalaayu wuuteeg nit ñi am ñu ne déeréet al mumayizu huwa man yasilu ila xaalatin bi xaytu yakulu waxdahu wa yashrabu waxdahu wa waxdahu wala yataqayadu bi sabai sinina ñu ne mooy koo xam ne toll na ci ak ràññee fum mu mën a lekkale boppam mën a naanal boppam mën a defar boppam su demee toilette xale bu toll foofu dañuy wax ne xale boobu xàmmee na duñ ca seet juróom-ñaari at wala lu dut loolu am ñu ne déeréet al mumayyiz huwa man istakmala sabaa sinin mooy koo xam matal na juróom-ñaari at loolu nag dëppoon ak texte ndax texte ba ne digal leen seen doom yi bu ñu amee juróom-ñaari at ñu julli kon nekk mukallaf chartaay war ci njàpp am xel chartaay war la chartaay wér la ndax ku amul xel nekkut mukallaf ku ràññee chartaay war la waaye du chartaay wér donte matul mu kàlla su jàppee dana wér waaye jàpp warut ko tegtal yi wane ne nekk mu kàllaf charte la bu njëkk ba mooy koo xam ne amutam xel ab dof la njàppam du wér koo xam ne it xale la bu ràññeewut njàppam du wér lu tax mooy dafa bokk ci ponki njàpp walla ci chartaam ci ñu ne charta la yéene te ku amul xel ngir ndof walla amul xel ngir ne yeggagul ci atum xàmme mënta yéene yéene du gonge ko ci ñoom ñaareel bi mooy njàpp warut leen lu tax dafa bokk ci shartaay njàpp at taklif te ñoom duuñ mukallaf li ci tegtal jóge ci waxi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xadis ja nettali ne yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na an thalathatin an as-saghiri yabluga wa an ilnaaimi xata yastayqida wa an ilmusaabi xata yukshafa anhu mu ne yëgatil nañ ñett xalima mooy ñett duñ bindal kan mu ne ndaw feeg géntut aji nelaw feeg xeewut ak ku jot feeg wuñ ñëwuñ xale feeg jotut sinnu taklif kuy nelaw feeg xeewut koo xam ne eh, dañ ko jees koo jot feeg wu ñeefut ko ko amul xel muy al majnun togguñ ko jëf ndaw togguñ ko jëf xadis ji wax nañ ne isnaad ja am na inqitaa tirmidi yu lëngal na moog nasaayu ak daaru qutni ak waqfam ñaareelu dalil bi ci ne taklif charte la ci chartaay njàpp mooy boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ala ann alkaafira waltifla gayra almumayaz gayra almumayizi laa yasixu minhu alwudu ne yéeféer ak xale boo xam ne ràññeewut njàpp du wéree ci ñoom kooku ijmaa la ibnu taymiyata dana wax ne al aqwaalu fi sharci laa tuctabaru illa min caqilin yaclamu maa yaquulu wa wax ci sharia deesu ko xalam deesu ko considéré lu dul mu jógee ci aji xelu aji xam xel ku xam li muy wax te jublu ko mu ne fa ama almajnunu waltiflu alladi laa fa aqwaluhu kulluha laxwun fi shari dof ak xale boo xam ne ràññeewut seeni wax lépp caaxaan la sharia caaxaan la koy jàppee laa yasixu minhu imaanun wala kufrun wala aqdun min al uqud ku mel nii muy xale bu ràññeegut wala dof ngëm ak kéeféer ak benn fas ci fas yi façon moo xam fasum njaay la wala fasum sëy benn wax ci façon wax du wéree ci ñoom bittifaqil muslimina kon nag taklif shartun min shurutil wudu'i hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa miqdaarihi al-azim seen mbokk Mouhamed Sakho fii ci Islamic Cultural Foundation of America Staten Island New York hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع اغتياض واغتنام إلى الإسلام Madina Travel Salum Jidda Sen Info International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhamed Muntaha Sakho ñoo di may émission bu mag bi